juróom ñett fukk ak juróom ñeent bu baax bi asalaamaaleykum mbokki déglukat yi nu ngi leen di nuyu ci turu yàlla borom jàmm ci bëgg ñépp dégg te nangu yoonu njub bi mu tëral ngir am jàmm ju wér ak moom ba faaw am nanu mbégte ci li nu mën a dellu tey ngir dégtal leen seen émission yoonu njub ci sunu gëstu ci téereb linjiil déggoon nanu ni borom bi Yeesu Kirist gannaaw ba mu dekkee ni mu sante woon ay taalibeem ne leen dem leen ci àddina sépp yëgal xabaar bu baax bi mbindeef yépp te gannaaw bi yéesu yëkkati ko dem asamaan benn ci ay taalibeem tudd Pool bind na ne yàlla woona ma ma nekk ndawam sas ma liggéeyu xamle xebaaram bu baax bi xebaar bu baax boobu yàlla dige woon na ko bu yàgg jaarale ko ci ay yonentam ñu def ko ci mbind mu sell mi ama benn werante ci xebaar bu baax bi may waare ndaxte mbirum yàlla la mu làmboo doolem ngir musal képp ku ko gëm ndaxte xebaar bu baax bi day wone ni nit mën a jube ci kanamu yàlla sukkandikoo ci ngëm rekk tàmbalee ci ngëm yem ci ngëm xibaar bu baax bi xibaar bu baax bi xibaar bu baax bi waaw lan mooy xibaar bu baax bi nu kàddug yàlla di wax ak waxaat tey ji ci ndimbalum xelum yàlla danu leen bëggoon a indil ay leeral ci xibaar bu baax bi nu doon déglu bu yàgg ba tey ci sunuy gëstu ci mbind mu sell mi waaye bala nuy waxtaan ci mbirum xibaar bu baax bi fokk nu fàttaliku xebaar bu bon bi jëkkoon a am fan la xebaar bu bon bi amee woon yéen ñépp xam ngeen ne ca njaalben ga gannaaw ba yàlla sàkkee asamaan ak suuf yàlla dafa sàkk aadama ak awa tàbbal leen ci toolu ajana ci kaw suuf yàlla sàkk leen ngir ñu xam ko bëgg ko màggal ko ba faaw wante ngir nattu leen yàlla ne aadama garab yi ci tool bi yépp mën ngeen ci xéewlu waaye garab gi nekk ci diggu tool bi moom bu leen ci lekk ndaxte bés bu ngeen ci lekkee dingeen dee wante ndeysaan xibaar bu bon bi mooy aadama ak awa déglu nañu jaan ja di iblis mu fiir leen ba ñu lekk ca garab ga te seen tooñ a tax bàkkaar ak coono ak dee dugg ci àddina yàq aadama ak awa ak itam képp ku soqi ci ñoom ndaxte ni ngeen ko xame mu du yem ci bopp boroom déglu leen kon xibaar bu bon bi kàddug yàlla di waare mu ne dogal nañu ne benn yoon rekk la nit ñi dee te gannaaw ga la àtte bay ñëw ndaw tiitaange ci ku sàggan ba tàbbi ci loxo yàlla ji dund boroom bi dina ñëw ngir àtte ñépp te mbugal ñi weddi ñépp ndax ñaawteef yi ñu jëf ci ñeme yàlla di leen fàttali it kàddu yu ñaaw yi ñu ko tifaar ci seen bàkkaar ak seen weddi loolu mooy xibaar bu bon bi nun ñépp ay bàkkaarkat lanu te faw nu jaar ci àtteb yàlla waaye xibaar bu baax bi mooy foofa ca toolub ajana yàlla mi bare yërmande yëgle na ne dina mësa yónnee ci àddina kenn ku taxul bàkkaar kuy soqikoo ci jigéen ju mësula sëy nit ku sell ki ràmmukat bu jub dina jëbale boppam ñu rey ko ngir fey bàkkaaru aadama ak askanam mbugalu bàkkaar gi nu yelloo ci moom la waroon a dal loolu mooy xibaar bu baax bi yàlla yëgle woon bés bi aadama ak awa bàkkaare gannaaw loolu yàlla jëfandikoo nit ñi mu tànnoon ñu yëgle ñëwuk ramukat boobu di almasi bi yonent yooyu kenn ku ci nekk am na mbir yu mu yëgle ci almasi bi ngir rekk bés bu ñëwee ñépp xam ne mooy ki yàlla fal ci misaal yonent yàlla esayi mi jiitoo almasi bi lu toll ci juróom ñaari téeméeri at yëgle na naka la almasi bi waroon a juddoo ne janq bu mësula sëy dina ëmb jur doom ju góor ñu tudd ko emmanuel li tekki yàlla ganesi nanu beneen yonent bu tudd mise moom yëgle woon na ne almasi bi dina jóge ca kaw juddu ci suuf ci dëkk bu ndaw bu ñuy wax betlehem te foofa la almasi bi juddoo tembe moo na ko mise di wax ay téeméeri at la lu jiitu jamonoy almasi bi waaye yonent yi yamuñu ci yëgle juddug almasi bi rekk te yëgle woon nañu itam ni mu wara daje ay coono yu metti deewal bàkkarkat yi ci misaal yonent yàlla daawuda ak yonent yàlla esayi bindoon nañu ne nit ñi dinañu xepp almasi bi tëfli ci kawam fitnaal ko dóor ko bëtt ay loxoom ak i tànkam ba rey ko sax wante loolu lépp yàlla dogal na ko ngir muccuk doom aadama yi ci mbugal gi leen doon xaar ndax seeni bàkkaar te yonent yàlla daawuda yamul ci yëgle deewuk almasi bi moom wante dem na sax ba yëgle ne yàlla du ko bàyyi mu yàqu ca biir bàmmeel ba waaye dina ko dekkal ngir firndeel mucc gu wóor gi almasi bi indil doomu aadama yi ci lu jëm ci juddug almasi bi werante barewul ci noonu waaye ci lu jëm ci deewam ak ndekkiteem ñu bari dañu ciy fakastalu dañuy wax naan nan la yàlla mën a seetaane ñuy toroxal almasi bi mu yónni woon wante li nit ña jàppul mooy lii yàlla mooy ki dogal ne almasi bi war na sonne noonu ndax sunuy bàkkaar loolu mooy li yonent yàlla yi yëgle bi ñu naan soob na aji sax ji mu gaañ almasi bi ni sarax ngir fay bàkkaar yi ndax gëmunu yonent yi danu ne gëm nanu leen kon sunu gëmee yonent yi ci dëgg-dëgg danu war gëm itam li ñu bind danu war a fàttaliku ne yonent yi waxuñu woon ci seen coobare coobarey bopp wante yàlla moo daan sol ci seeni xel li ñu waroon a wax kon yonent yooyu bu nu leen bañee gëm kan lanuy weddi yàlla yàlla lanuy weddi ndax moo leen waxloo woon ñoom yonent yooyu bi ñu yégle ne almasi bi dina dee ni sarax suy dindi bàkkaar ndegam yàlla ku bëgg àddina la te bëggul kenn sànku ci biir bàkkaar mu dogal deewu almasi bi faw nit ku jub dee ngir ñu jubadi ngir musal leen ci àtteb yàlla moom la saraxu mbote yaag xar ya ñu daan def doon misaal ca jamono yu jëkk ya yéesu kirist mi judd ci janq ci kàttanug yàlla mooy sarax ci yàlla joxe mu mat sëkk te mujj ni ngeen ko dégge ba tàyyi tungu ne du teew ñuy natal sarax su mat ci sëkkul kay bu nu ko amee waratunoo sonal sunu bopp ci ay sarax yu matadi yu ñuy defaka defaat ndax mën ngeen a fàttaliku li borom bi yéesu mujjoon a yéene ca bant ba laata muy dee mu ne woon lépp mat na fayal na la sa boru bàkkaar benn yoon ba faw lenn dong nga def nga war koo def mooy gëm gëm ko ni nu ko jànge ci sunu ndoorteel njàngum tey ji mbind mi nee xabaar bu baaxu deewug yeesu krist ak ndekkiteem mbirum yàlla la mu làmboo dooleem ngir musal képp ku ko gëm ndeysaan am na ñu bari ñu ko bañ a gëm naan mbirum deewuk yeesu ak ndekkiteem ay léeb kese la lu ëpp ci nit ñi xamuñu ki yeesu doon ci dëgg-dëgg moona bu nu jànge ci linjiil dañuy gis ne lépp li yonent yàlla yi yëgle woon ci almasi bi yeesu kirist amal na ko tembe muy ci lu jëm ci juddoom ci dundam ci deewam ak ci ndekkiteem moo tax linjiil dinu wax ne yeesu kirist dee na ngir dindi sunuy bàkkaar ni ko mbindi yonent yi tërale suul nañu ko mu dekki ca ñetteelu fan ba ni ko mbindi yonent yi tërale lépp nag xewoon na ni ko yonent yi waxe woon tembe ñi bañoon yéesu ñaawal nañu ko fitnaal nañu ko rey ko te ñi ko bëggoon suul nañu ko wante de mënu ko woon a ca biir bàmmeel ba kon gisoon nanu ne ca ñetteelu fan ba ñeenti jigéen jóg nañu ca fajar dem ca bàmmeel ba bàmmeel boobu mooy bàmmeel ba ñu suuloon borom bi Yeesu Kirist noonu jigéen ña gis bàmmeel ba ubbeeku kenn nekku ca yeneen taalibe yi itam dem ca bàmmeel ba te gisuñu néewu borom bi yàggul dara ka te dekki tàmbale feeñu ay taalibeem lu mat ñeen fukki fan dëgg la almasi bi noot na dee te ndekkiteel yéesu dafay firndeel ne yàlla nangu na saraxam ngir fayal doomi aadama seen boru bàkkaar ngir képp ku ko gëm dinga bokk ci dundam gu sax gi mu indi loolu mooy xebaar bu baax bi boroom bi yéesu kirist dee ngir dindi say bàkkaar te génn na bàmmeel ba ca ñetteelu fan ba ngir may la dund gu jeex gi te njariñu xebaar bu baax boobu nag mooy musal képp ku ko gëm kon nag laaj bi nga wara tontu tey mooy ndax gëm nga ko kàddug yàlla dafa wax ne tey mooy bésub mucc bi boo déggee xabaar bu baax bi bul dëgër bopp gëmal mucc gi du peyu jëf yu nuy def ndaxte kenn mënula def jëf yu doy ngir am ajana yàlla du la jaay mukk muccam gu réy gi dafa la ko bëgg a may lenn rekk ay tax nga dugg ci ajana yàlla ji mooy nga jëkk ràññee ne bàkkaarkat nga te amuloo benn doole ngir neex yàlla gannaaw gi nga gëm ne yéesu mooy musalkat bi la yàlla yónnee mu dee ca bant ba ngir dindi say bàkkaar te dekki ngir may la dund gu dul jeex gi boo gëmee xibaar bu baax bii nag mën na la wóor ne dinga tàbbi ajana ndaxte yàlla ci boppam moo wax ne maa ngi leen di bind yëf yii ngir ngeen xam ne am ngeen dund gu dul jeex yéen ñi gëm tuuru borom bi yéesu Christ. man mi wax ak yéen tey ci sama wàllu bopp mën naa leen wax ne bu jëkk xamuma woon fan laay dem bu ma deewee may laajte fu nekk amuma tontu lu leer wante bi may gëstu ci linjiil nag ci laa gis ne aha mën naa xam fan laa jëm bu ma deewee ndax yéesu almasi bi moom ci boppam wax na ci linjil ne ci dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax ku dégg sama kàddu te gëm ki ma yónni am nga dund gu dul jeex te doo jaar ca àtte ba ndax te génn nga ci dee tàbbi ci dund wax na itam ne man may ndekkite li may dund gi ku ma gëm boo deewee it dinga dund noonu laa gëme ki nga xam ne mooy almasi bi yàlla digge woon bu yàgg ca toolu ajana te yonent yépp doon yégle ne képp ku ko gëm yàlla dina la baal say bàkkaar ci turam ma jël sama yaakaar jépp wékk ko ci borom bi Yeesu Kirist booba ba léegi yàlla dafa dalal sama xel xel ñaar amatul ci man sama ëllëg leer na nàññ ndax jëfu yéesu ca kaw bant ba ci sama dundu taalibe Kirist coono am na naam metit bari na ndax sama ngëm gi dëppoowul ak sama coobare mbokk yeeg xarit yi wante jàmm rekk jàmm ju bawoo ci yàllaa ngi fees sama xol ak sama xel te yeesoo ma ko defal moom mi ne bu leen àddina bañee xam leen ne man lañu jëkk a bañ jàmm laa leen bàyyeel sama jàmm laa leen jox jàmm ju àddina mënula joxe bu leen jàq bu leen tiit te nag xarit yi loolu borom bi def ngir man def ko itam ci man mën na la ko defal mën na leen ko defal kenn ku nekk ci yéen lenn rekk lay laaj ci yow mooy nga jox ko sa xol bépp li ci des moom dina ko def ndaxte borom bi yeesu ci boppam nee na ñëw leen ci man yéen ñépp ñi sonn te diis dinaa leen may nooflaay jébbalu leen ci man ndaxte lewat naa te woyof te dingeen am nooflaay ci seen xol soo gëmee borom bi yeesu gëm xibaar bu baax bu deewuk almasi bi ak ndekkiteem yàlla dina la baal say bàkkaar àtte la ni te bind sa tur ci téereb dundu gi te it boo gëmee xibaar bu baax bi yàlla dina la tàmpe ni ñoñam yabal xelum yéesu mu sell mi ci sa xol te naka noonu xel mu sell mi nekk ci yow dina soppi sa dund ak sa dundin ndaxte mbind mi nee na bu nit bokkee ci kirist mbindeef mu bees la li jëkk wéy na lu bees a fi teew kon nag yow mii déglu tey koo mën a doon foo mën a nekk noo mën a toll ngay góor jigéen mbaam ndaw borom bi yeesu kirist mën na la may dund gu bees gi ci kaw nga gëm xibaar bu baax bi nu ngi leen di gërëm ci déglu bi su ngeen amee laaj ci li nu jàng tey bind leen nu ci yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub BP 370 Saint-Louis yàlla na leen yàlla barkeel te ngeen xalaat bu baax ci li mbind mu sell mi wax ci mbirum ñi wékk seen yaakaar ci xibaaru yàlla bu baax bi mu ne yàlla musal nanu te woonu ci dund gu sell ci lu ajuwul ci sunuy jëf waaye ci dogalu boppam ak yiwam winu nu yàlla may ci kirist yeesu ba àddina sosoogul te léegi biral na ko ci feeñuk sunu musalkat kirist yeesu mi nasaxal dee te feeñal dund ci xibaar bu baax bi te muy dund ko sax